ñooñu seen lim ni la tëdde ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yu tëddee nii juróom ci dakaar Plateau ñeent ci Parcelles Assainies ñett ci Liberté 3 ak Yoff ñaar ci Mermoz benn ci fas Delorme Diamaguène Gueule Tapée Guédiawaye Hamo 5 HLM Mbao Ngor Ouakam ak ci région yi am nañ ci fukk ak benn yu tëddee nii ñaar ci Pout Somone ak Ziguinchor benn ci Kidira Matam Mbacké Ngaparou ak Oussouye juróom-ñaar fukk si malade yu entré woon hôpital ak ñu doon topp ci kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn si yàlla ànde fukk ak juróom ñetti malade ñoo nekk ci réanimation ñetti malade ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb ajjuma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bësu tey dale ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñett ak téeméer ak benn wér nañ ci junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër gi ministère la santé de l'action social mu ngi ñaanal ñoo ñu génn àdduna yàlla xare leen àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër gi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jam ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi dooree ba léegi ñu jot a ñàkku ci réew mi ñu ngi toll ci ñett téeméer ak ñeent fukk ak ñetti junni yu teg ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ministère de la santé et de l'action sociale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 bañ a fàtte seen rendez-vous ngir mun a tollanti ñaareelu dose de vaccination bi te di wéy di sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bos bu nekk ministère de la santé et de l'action sociale